cent yu takku lool ñoom la ñu tere tey ñu lal seeni marchandise ci marché central bu Kaolack ngir amal tere bi ay policiers yu takko takku yu ànd ak ay camion ak i bulldozer ñoom lañu ñu ngir mën a jëlee commerçant yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci li wër marché central bu Kaolack commerçant yi wone ñàkk ànd bi ñàkk ànd ci xalaatu meeru Kaolack Serigne Mboup yóbbu baaxul kenn duñu fa fekk kay xëy quatre heures du matin dina aw yoon boobu di dem mais amul fenn fu ñu teg pour foo xam ne ginnaaw kër di fi nga xam ne àllu kese la boo xam ne wóoru yàlla xam ne bu fanaane taw tey bu ñu xëyee ñun ñëpp duñ fa mën a teg suñu a ñu yëkkati ñun ñu ngay def nañu bàyyi ñu liggéey waa mairie bi di xamle ne opération bi dañ ko yëkkati ngir gën a mën a organiser marché yi waaye tam gën a taaral nekkin bi boo xoolee a leen defar ko finalement autorités yi décidé nañ ku xam exactement site boobu di xam ne site bi aménagé nañ ko defar ko ba mu rafet am ay toilettes am lumière organisé nañ ko ba nga xam ne ñoom bu leen siñ réew ngir ñu taxu fa eh, baaxul duñ fa dem tey duñ fa dem ëllëg dañoo sonn suñu ñaq bi lañu yaakaar di ko dundee nañu ba ñu liggéey yëkkati bi nga xam ne yëkkati nañ ko yenn ci commerçant yi ci marché central bu Kaolack taax ñu bëri ci askan wi ñu dajal samp laaj lu waral commerçant yi nga xam ne ñoom ñoo toog ci mbedd bi nekk diggante centre commercial ak marché central bu Kaolack ñoom kenn jëleewu leen ñu nekk